aca asalaamaaleykum wa rahmatullah mbokki internet yi ñoo ngi leen di nuyuwaat rek di leen ziar bu baax a baax eh, di leen jox seen wàccuwaay tey ñun ñu ngi fii nga xamante ne tey moo di njafe eh, ci benn mouvement boo xamante ne dañ fiy def li nga xamante ne moom moo di set setal ak reboisement fi nga xamante ne moom moo di njafe ñu jël suñu benn grand mu présenté wu wax turam wax ñu mom moy kan ak li waral bés bi. asalaamaaleykum maa ngi ñëpp di am mbégte ci bés bi maa ngi tuddu Ousmane Kor nek vice président MONAP commune de Dioson bés bi nak bes bu xam ne bu rafet la ci dëkk bi ñu ne commune communal bu Dioson fii la ñuy def seen set setal ak reboisement ñu am mbégte trop ci bés bii tey sama tey nekk na bés boo xam ne amoon naa ay activité waaye dama ko arrêté Pastef amul lu ma jaralu man dama ciy dem boo jeex Pastef man su ma buggee nit damay bugg dem ba jeex Pastef nag noonu laa mel ci moom bañ naa ko ba moom rek laay suivre du ma aw beneen activité bu may suivre lu dul groupe Pastef tey bés bi euh, grand lan moo waral bés bi bés bi reboisement la ak li nga xamante ne moom moo di set setal ci njafe la yem wala dafay tourner ba ci biir commune bi. non tey njafe moo aaye rek. njafe moo aaye njafe te le 3 bi. Hmm. président bi dafa ne. Hmm. reboisement au niveau Sénégal yëpp communal yaa ngi reboisé. Hmm. gars yi doo tànn njafe. kon ñu rafetlu. lu ñu tànnee njafe kontaan bu baax ci bés bi amuñ luñ leen fay allah léegi reboisement bi ci école bi la wala ci dëkk bi yëpp la reboisement bi du ci école bi danañ reboiser ci jumaa ja danañ reboiser quelque mbedd quelque endroit ci biir endroit ci biir dëkk bi képp koo xam ne su defee képp koo xam ne am nga foo war a ji jox la nga jëbët lan ngay wax jeunes yi nga xamante ne jeunes yi itam ci dëkk bi ñu mobiliser wu jàppante xam ne xëccoo dóorandóor ñun ñëpp ñu doon benn adduna du dara ñu mën a ànd rek ñooy ànd te nañ bàyyi suñu xel ci ñëpp xam ne ñun doom aadama yi ñun ñëpp benn lañ li Njafe lii Mbulum lii Ndiogon dañ ne commune de Dioson ñun ñëpp benn lañ ñoo bokk ndey ñoo bokk baay macha allah war a bàyyi suñu xel bu baax surtout booy lépp lu ñuy séparé mooy nawetaan loolu nawetaan loolu am na après ci kanam dinañ ci ñëw juste que pour yow nga présenté wu woon rek ah. wax li nga xamante ne tey moom moo waral bés bi loolu la woon mais ci kanam yéen ñëpp ku ci nekk dina jëlaat kàddu ñu ñëwaat président ay yi ba léegi ñu demaat rek ki nga xamante ne moom moo di président ASC Law Xewre bu Njaxit moom lañ jàppal woon ma koy wax Modou ñu di la ziar di jox sa wàccuwaay Modou tey jii fi nga xamante ne moom moo di

parce que bu ñu waxee set setal teg ci jëmbat garab foog naa lépp ci environnement lay te boobu moom garab saa yoo ko jëmbatee moom amatul gox bi nga ne àdduna lépp lay jëriñ set setal tamit bokk si loo xam ne day yokk santé te kon su boobaa ñaar yooyu buñ andee lépp dañuy wax ne day dem si wér gu yaram doomu aadama kon bés bi moom rafetlu ko rek la ak mouvement bi tamit luy rafetlu teewaay ak lii teewaay parce que ci lu bëri njafe mu ngi koy développé kon tey bu ñu woowee ñu jeunesse ñu waroon cee nekk mhm. premier bu ñu woowee dañuy njëkk a ñëw tamit mhm. loolu moom amul leneen luñ ci wax lu dul rafet lu lii bi daal bés bi waaw bi ñu ñëwee gis nañu ASC La Forêt ñoom aussi am nañ ci Pastef bu mag a mag ñu ngi ci taxaw xam naa ne tey euh, mouvement bi nekkul waa njafe kese mais li ci ëpp nii waa njafe la kon mel na ni ASC bi am na ci taxaw ASC bi moom am na ci taxawaay depuis bu ñu programmé bés bi tey dañu programmé woon liggéey pour dëkk bi mais dama ne dañuy reporter sax suñu bés boobu pour yóbbu ko beneen jour ndax mënuñ wax ne Ndiaffé la ñu ñëw ñun ñun en tant que jeunesse su Ndiaffé war a bokk si lu président bi lancé ay développement ñun ñu war cee jiitu kon développement moom amul frontière ñun jàppuñ ne sax ne mouvement bi du waa Ndiaffé dañoo jàpp ne ñun ñooy mouvement bi ci boppam Eh, ñu jiital ci ki nga xamante ne moom moo di suñu grand Modou bu ñëwee lan ngay wax Modou. waaw Modou moom en dehors relation yu ñu am xam naa ne nitu développement la aussi. Mm-hmm. parce que man mii may wax tàggat na ma si lu bëri loo xam ne même ASC bu ma jiite bokk na si ñu tax ma am fitu jiite ASC parce boo xoolee ñu njafe toll man mii booy ma ñëw jiite leen kon am naa ñoo xam ne ñu ngi sama ginnaaw di may jàppale te moom bokk na si ñu may jàppale si macha allah yal ñu ngi jublu ci li nga xamante ne aussi moom moo di nawetaan loolu xam naa ne ci kanam dinañ ci dellusiwaat bu liggéey bi tàmbalee balaa ñuy bu ñu paree képp ku nekk ci yéen dina jël parole ñu wax ci loolu parce que nawetaan nekk na loo xamante ne tey dafa war a boole mais warul xaajale mais gis nañ ne jamono yi bëri na loo xamante ne tey jii bu yàqoo rek diggante dëkk yi nawetaan moo koy def en tant que président ASC loolu yow di nga am loo ci wax je waa waaw loolu moom auparavant dañ ko doon gis. parce bu njëkk nawetaan boo ko waxoon rek. Hmm. parent yi sax dootuñ ci kontaan ndax dañu gis ne mbokk bu ñu defaroo moom la nawetaan ñëw pour yàqu. pour yàqu. te nawetaan warul daa war a boole parce que sport boo ko waxee discipline la ci jiitu mm-hmm. ñun depuis daaw comme ni ma wax si Mamadou Ndiaye rek depuis bu ñu moom man ma nekk moom moo commencé di def ay match amical hmm. parce que boo xoolee bëri équipe yoo xam ne peut-être lañ ko doon wax hmm. jafe mbulum yooyu hmm. mais moom boole nañu bu noonu waa sax léegi famille la yu bëri joué nañu di dem mbulum mbulum di déplacé di ñëw kon mun nañu wax ne côté boobu ñu ngi dellu si waat suñu xel xam ne nawetaan daf ñoo war a boole mais waru ñoo xaajal macha xam naa ci kanam après dinañ jëlaat kàddu rek bu soobee yàlla ñu ngi rafetul taxawaay bu baax a wo ɓe laaɓi ɗayo tawa waga jangna mbayi wo jole wo laaɓi ɗay wo mi jang ɗono gambu har jegu teno laaɓi ka laaɓ